ci weeru tëdd wi nga xam ne moom la yàlla baaxe ñu fekkwaat ko ren jii nii te tàmbali ko tey jii ci bismillahi rahmaani rahim bi ñaan suñu borom mu may ñu àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te lépp loo xamante ne am na ci ci ay rëcc rëcc yàlla ñu ko suñu borom soppi la aw yiw lépp loo xamante ne def nañ ko ci te jublu ci aw yiw yàlla ñu ko suñu borom te làqal ñu ko fi yàq yëgut ni nga xamne ne la ko mu asasatul wafaay bi xuququl iman baxu and ak yeen ci bu wéru ko gi tambalé ci dekk bu tedd bi ci béréb bu tedd bi ni ci wéru bu tedd bii nii dikkaat nañ rek insha allah fas yéene ak yeen ci jotaay yi nga xamne mom moom muy and ak yeen ci weeru ko di yépp lepp nak tënku ci kaw ndigal lo xamne ki fii toog toogaayu borom daal mu waxti moom moo koy joxe liggéey bépp aju ci ndigal loo xamante ne day bàyyi ko ci moom kon insha allah tey jii tolloo ak juróom-ñaari fan ci weeru juin dañu fas yéene tàmbali liggéey bi insha allah ni ñu ko baaxoo defee rek baaxu woon nañu saa yu ñu tàmbali liggéey bi sëriñ Basiiru Anta Ñaŋ moom mooy ki nga xam ne moo fi daan teew ànd na ubbi liggéey bi ñaanal ñu ñu tàmbale ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin noonu tamit noonu rek lañ koy def wàlla jii nii mu yebal fi suñu kilifa gi nga xam ne liggéey bépp ñoo moom ñoo koy ànd muy sëriñ Abdou sama Mbacke daaw mu teewoon fi jël ay kaddu ci turu sëriñ Basiru ren ji tamit mu teewaat fi fas yéenee jotale ay kaddu yo xamne ci serigne Bassirou la joge kon bala ñuy tambal rek dañuy jox kaddu bi serigne Abdou Samane mbacke su ko defé mu andi kaddu yi nga xamne mo baye ko ci serigne Bassirou Anta assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñoo ngi nuyu mbokk talibé yépp ñoo ngi nuyu mbokk jullit yépp ñoo ngi nuyu mbokk Sénégal yépp ñoo ngi nuyu mbokki àdduna ci serigne Bassirou maam Thierno Ibrahima moo fi waroon a teew tey am gànt tax mu jox ma ndigal ma ñëw teel ko fi waaye lu jutul lépp loolu mu sant suñu borom subhaanahu wa taala ndax daaw baax woon na mu fi daaw ren woon ñu teew fi ren xeexu yu bari xew na fi événement yu bari xew na fi yooyu yëpp suñu borom mosuñu ci man nañoo bañ a fekkee mën nañoo bañ a tal mënoon nañu bañ man waaye gàllankoor ko rek suuram teggal ñu ko bañ teew ren ko sant bu baax alhamdulilah kaddu yi yu sant rek lay doon jóge ci moom di sant muassasa bi ci seen taxawaay seen pasteef ak seen liggéey bu rafet muy dellu ci ndigal loo xam ne bëgg-bëggu Sëriñ Tuubaa la woon joxoon ko borom daaru moom ci maam Cerno Ibrahima mu di ko mu di ko doxe loolu mooy la bu baax si fii tey jii bii Sëriñ Tuubaa wooye maam Cerno Ibrahima wax ko ne ko daa bëgg nga fóotal ma gàkk ci sama sama mbubb wala sama yaram maam Cerno def ko ne ndax yow seeram am na benn gàkk mu ne ko waaw dañoo xam ne dama fay taali jàngo yi ma bëgg laa boole mbooloo moo xam ne li ma leer na ci li ma la xamal koy xamal boo ko defee ma faj si aaju faj seen aaju daal ne bu ñu ba ci kanam loolu ku bëgg a xam dara ci diina ji boo ñëw ci doo ko xam ku bëgg a dara ci diina ba ñëw ci ñun doo ko leeru boobaa dañ xam ne fooy mën taal fooy mën taalu jàng dama ko mën taal loolee nag kun bis bii wala waxtu yi moo tax mu di ko wax ba ngeen tàmbalee waxtaan wi léegi yàgg at yu bare bare bari la xam-xam bu nekk feeñ na fi boroom xam-xam bu nekk feeñ na fi loolu liggéey bu rëy la bu jëkkoon ci senegal benn waxukaay fi newal lu néew ci nit ne fa ci wax ci diine ñu dem ba jàpp na Sénégal li fi am li fi nekk boroom xam ëppul ñaar wala ñett ndax boobu ñu accaparé mbir yëpp ñooy wax ñooy def lépp léegi nag bi ngeen tàmbalee lii ma jaayee jàppale leen ci ci lañ xam ne ndeke Sénégal li fi ne ci borom xam-xam damay wax ne weer bu tero weer koor yi bu tero ba ñu jeex mën na ko jàpp ne université la université boo xam ne yéesul al Azhar yéesul jaamatu imam université gën a mag ñu fay xam ne diine lañ fay xam ëpp lu ñuy xam lu fii kon lii am njàng la moo xam ne <clears throat> ñëpp ci jariñu mawaad yi bu ne wax nañ ko fi xam-xam bu ne génn fi borom xam-xam bu ne jaar na fi loolu liggéey bu réy la te ngeen tànn ci waxtu yi liggéey yàlla gën a baaxe waaye liggéey suñu borom fépp la gën a baaxe waaye nag da ci am fu mu ëppee tiyaaba <clears throat> am fu mu gën a baaxe mooy ci yooru koor bi ñu ko defee suñu borom waxtu nekk la bëgg lu baax waaye waxtu weeru koor a ci raw suñu borom waxtu nekk lay fayee lu baax waaye waxtu weeru koor a ci raw kon waxtu wi ngeen tànn waxtu baax jëf lu baax la mooy wax ne yéen mu leen considéré comme asabul kafi moom fidyatun aamanu bi rabbihim wa zidnahum hudan loolu moom laa leen di xaalis toujours dañoo toll ci jamono joo xam ne ndaw yëpp dañoo daw wuti àdduna dañoo wuti amam ida wuti tur ida wuti ay mansab ay place muy jamono bu nakare maqari réew mu jafe jafe jafe pour nga conserver ngëm ak sa pas-pas muy lu jafe yeen yalla baxé len ba aduna jëm saw ngeen jëm penku lolou liggéey bu reuy la jafe-jafe bari ngeen jakkontel coono yu bari ngeen jakkontel bu ngeen mooy seen morom yi ci des tey jàng tëdd seen kër taal seen climatiseur taal seen ventilateur du noppalu ndax météo météo koor bi yéen ngeen xëy ca ngoon ba léegi ci suuf ba léegi noppalu de ngir liggéeyal yàlla liggéeyal Sëriñ Tuubaa loolu liggéey bu ñëpp lañ ci am ñëpp lañ ci am la ma ngërëm <coughs> wax ne yéen <coughs> guerre bi Sëriñ Tuubaa déclaré na da koy def wax ne day xeex jihaad ci xam-xam ak ragal yàlla inni ujhadu bil umur bi tuqaa loolu ci ngeen nekk xeex boobu nekkul ne dafay jeex léegi ndax ba àdduna tukki ignorance di fi am ba àdduna tukki ñàkk ngëm yàlla di fi di fi nekk te képp ku ñëw àdd ak sëñ Tuubaa ci ci jihaatam jooju war ngaa jëfandikoo ngar na yi muy xeexe ndax boo ñëwee ci bu giyaar ne borom guerre bi dama lay jappale te la muy xexi xeexewoo ko day mel dang ko sob ndax dañ lay jappale dañ lay dañ lay limale ci soldaar yi xeex te yoro nga na yo xex kon gëstu xam-xam genn xam-xam jox ni xam-xam ci liggéey bi seen tubaab da bëgg la bokk kon yeen yeen yeen yeen yéen ngi koy def kon seen taxaway ci l'islam rafet na lool seen taxaway ci yoonu mu rafet na lool ñepp lañ amuñ jugal ñepp ngeen ko defal ñëpp ci war a jàpp itam ndax liggéey bu sëñ Tuubaa la taal bu sëñ Tuubaa taaloon ca Makka Kajoor la kenn waru ko bàyyi mu fay ñi am man-man nañ ci def seen loxo ñi am xam-xam na ci seen seen seen seen xam-xam ñi bëgg xam bëgg a jariñu bëgg tiyaaba nañ ñëw di teew kon sëñ Modou Kara lii mooy kàddu yi xam ne suñ mo suñ Basiru Anta waxoon ne naa leen ko wax di leen encouragé di leen soññ te xam ne wax bu nekk mi ngi bàyyi xel ci yéen ci ay ñaanam ci ak jàppale ñu ngi sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf sëriñ Abdou saman Mbacké ci kaddu yi nga xam ne moom la yëkkati te yëkkati ko ci turu sëriñ Bassirou Anta mi nga xam ne at mu jot mooy ànd ak ñun ci ubbiteel liggéey bii nii te ni mu ko waxee léegi gàllankoor tax mu yebal sëriñ Abdou saman mii nga xamante ne moo ko fi teewaloon daaw ren jiitu mu teewalaat ko yëkkati kaddu yu am solo yi nga xamante ne moom la yëkkati ñu ñaan yàlla ñun tamit suñu borom bàyyi leen fi yéen. kattanal leen ba lii nga xamante ne ci ngeen nekk di ci yëngu muy bay ci waar wi nga xamante ne moom la sëñ Tuubaa bàyyi loolu noonu ngeen àggale ko fu kaw seen jort kon dañuy jox rek kàddu gi sëriñ Mouhamad Mbacké moom sëriñ Bassirou Anta mi nga xam ne mooy wax ci turu kuréel gi su ko defee moo am ay kàddu yoo xamante ne dana ko yëkkati rek am ay leeral yoo xam ne dana ko leeral ba dañuy ñëw ci ki nga xam ne moom la ñu fas yéene dal tey muy sëriñ Xalil Mbàkke moom sëriñ Moussa Absa aousu billahi min asheytaan rajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin seydina wa moolana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwan wa tamkin mbokk yi jullit yi ñu ngi leen di nuyu nuyu bu gën a tedd di len ñaanal ñaan gi gëna tedd mu di jamm ak yërmande suñu borom yalla nako yalla yàlla suñu borom sotti ci xéetu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi ngi sant yalla bu baax mom mi nga xamne ci kàttanam ak yërmande moñu ñu ñu tew fi daw ren ji mu defal nu tawfiq joju ñu fekk ko and ak man ak tal ñi sant suñu borom ci xéewal yoy nga xamne mom lañu defal di ndokkeel bu baax jullit ñi ci weer wu tedd wu mag wi nga xam ni mooy door a tàmbali di ñaan yàlla sunu borom li mu ci digg ci ay njëggal ak goreel ci sa wara ak tawféex yàlla nañu sunu borom dëppale ak loolu lépp loo xam ne rëcc nañu ci ci ay rëcc rëcc yàlla ñu ko sunu boroom jéggal soppil nu koy yiw noo ngi seere bu baax sunu kilifa yu baax yu tedd yi nga xam ne ñoo nekk sunu kanam jiituñu ci l'islam ji ak diini ji ñu ñaan yàlla bàyyi leen fi ba li ñu jiite muy diini ji yàlla bàyyi leen fi bañ nekk suñu kanam bu baax buñ ci jiitalee maam di taifatul muridiya cheikh sidi al muxtar tak ci ki nga xam ne moo yilif ëtt bi ñu nekk nii di ëtt borom daru muuti di sëriñ abbas mbàkke ñaan yàlla mu bàyyi ko fi ak njabootu borom daru ak njaboot ak ñëpp yàlla bàyyi ko fi di siaré bu baax nak ak ñaanal nëgën daaw kilifa go xamné daw mi ngi fi won di soñé ci liggéey bi di ci japp moy sëriñ ki nga xamné moy sëriñ cheikh khadim bakki mi nga xamné mo nekkon khalifa mam ibrahim te yalla sunu borom def ci coobareem yalla nako yalla yëgal ci maqama yi gëna kawé kawe dolli mom fofé ci aljana ak mbooleem ña nga xam la fa nekkal ci njaboot gi fi bayiko ko yalla neen yalla xari aljana ñom kon ci turu mu assisatul wafa bi xoququl iman ñi ngi tàmbali liggéey bi tey jii di ñaan yàlla sunu borom ñu tàmbalee ko ci bismillahi rahmaani rahim àggalee ko ci alhamdulillahi rabbil alamin niñ ko baaxee defe at mu ne ay leeral yu gàtt rek ak yi cant yoo xam ne muassisa bi dafa ne nañ ko jotali mboolem mbokk yi yépp kon muassisatul wafa nee na lii de lenn la ci benn poñ boo xam ne da koo jël ngir fa yéene koo liggéeyal Sëriñ Tuubaa muy saareel ko xam-xam bi nga xam ne lu ko yitteeloon la ndono li nga xam ne moom la fi sëriñ bi bàyyi woon maam yi bàyyi ko fi ñi fi nekk it nekk ca loola loola mooy jubluwaay bi nga xam ne moom ci la bëgg liggéey ak dimbalante ci lu baax ak lépp luy safaan ba it ñu jim ko moytu kon moo assatu Wafa nee na mi ngi sant mboolem ñi nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bi ñi si jàpp ci alal ñi ci jàpp ci am xel ñi si jàpp ci seen doole ñëpp yàlla sunu borom mi nga xam ne moo doon dara yàlla gis na leen te nee na ngi ñaan yàlla yàlla fay gi fay àdduna ak comme ren niñ ko baaxoo defee niñ koy waxee at mu ne rek tànn nañ ay borom xam-xam yoo xam ne mën nañoo wax ne toll nañ ci ñaar fukk ak juróom yoo xam ne borom xam-xam yi ñu am yaakaar lañ wóolu seen xam-xam. jàpp ne itam nañu ko daa defee at yu weesu rek ku fi ñëw ku ne xam-xam ak lu jariñ jullit ñi nga fi indi loolu lañ yaakaar ci ñoom jàpp nañ ni loolu lañ fi indi waaye buñ ci gisee loo xam ne nag xay na lu safaanoo ak loolu la nañu jàpp ne loolu day dellu ci doomu adama rek boobaa kon xay na muassasa bi moom loolu du woon yéeneem li woon yéeneem daal mooy tasaare xam-xam ci anam gi nga xam ne anam gu gu leer la goo xam ne noonu la ko yàlla sunu borom subhanahu wa taala andee ci alquran yonente bi sallallahu alayhi wa sallam andee ko noonu sëriñ bi nga xam ne moom lañu yaakaar andee ko noonu kon loolu rek mooy jubluwaay bi ñu ngi sant mbooleem ñi nga xam ne ñooy liggéey ci kuréel bi ndax bu ñu gisee liggéey bi mel nii jàpp nañ ne ñooñu saa bu noppee ren rek seeni xalaat ak seen xam-xam ak seen doole lépp tàmbale nañ koo xalaataat jëmi déwén ñooñu nag ñu ngi leen di jagleel ak sant di ñaan yàlla sunu borom mi nga xam ne moo mën a kattanal doomu adama mu kattanal leen ñoom ñëpp ba at mu ne rek ni ñu ko bëgg yàlla suñu borom taw tawfeex la ñu defee ko noonu ñi ngi sant it mbooleem ñu nga xam ne ñoo koy diglu di ñëw ci jotaay bi di ko diglu ndax boo defoon sa waxtaan te mbooloo mi digluwuñ ko jàpp nañ ne loolu message bi dana xaw a des waaye nag ñi nga xam ne ñooy ñëw di ko diglu si rawatina kilifa yi ñu ngi leen di sant bu baax ci seen teewaay ñi nga xam ne ñooy ñëw ci jataay bi ñi nga xam ne it dañoo am ngànt nga xam ne fa ñu nekk ñu ngi koy diglu ci mboolem jokkukaay yi anam yi jàllalee wàllu waxtaan wi ñu ngi ko ciy diglu ñoo ñooñu tam ñi ngi leen sant baax ñi nekk ci biir réew ak ñi nekk ci bitim réew ñëpp ñi ngi sant dal mbokk yi ñëpp di ñaan yàlla suñu borom liggéey bi yàlla nañ ko tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin ñi ngi sant bu baax nag suñu kilifa tedd gi nga xam ne waxtu ne mi ngi suñu wet di sëñ Abdou Samane Mbacke moom Cheikh Mamadou daw Balla ñi koy jagleel ak sant ñaan yàlla mu dëgëral guddal ofanam ba li mu yéene liggéey ci lislam bi ak yoonu Seexul Xadim yàlla defal ko te ànd koog moom ndax at mu ne mu ànd koog ñun joxe ci ay soññeem ànd koog ñun liggéey bi kon yàlla mi nga xam ne mo meuna a yalla ko kattanal ak mbollem kilifa yi kon dal mbok yi li moy kàddu yi nga xamne mo mu asatu fa tënkoon na ko ne nañ ko jang ñi ngi sant ñep di gërëm ñep yalla ñu ko tay waat at yu bari ci kàttanu sunu borom ci barkeb serigne bi alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kon inshallah allah dañ ba lañu jox kàddu gi serigne khalil rek xamaa ne dañuy euh, xam ne tuuti rek ci li nga xamne mom la fassiyene yéene ak ñun tay jangat ko. muy wàllu xasida yi ak lépp loo xamante ne aju ci jàngin week bindin weeg ak lépp loo xamante ne aju na ci wàllu xasida yi incha allah moom lañu ñu fas yéenee baaxi tey jii nii. kon bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk aslëf ci ay yëngutoom mu jànge alxuraanul karim ci dëkk bu ñuy wax Kër Masayar ci sëriñ Mbay Xarit Sill ginnaaw bi mu jàngee alxuraan ba mokkal ko mu dem ci daaru minam Saloum tàmbulee fa njàng mu xam-xamam. jàng fa la xaw a bëree ginnaaw bi mu ñëwaat fii ci Touba ci kër sëñ bu euh, mottalee fi njàng mu xam-xamam bi mu jàngee xam-xam ba noppi tamit ci la ko sëriñ euh, Saalifu Mbàkke jox ndigal mu dem fële ca Xelkom tàmbali di fa jàngale ak di gëstu tamit jàngale fay at yu bëree bari ginnaaw bi mu ñibbisi fii ci Touba euh, sos footu ba fa ba daara. di jàngale alquranul karim ak xam-xam foofu ci këram waaye yemul ci njàngale moomu kese waaye am na ay taalif yu bari yoo xamante ne def na ko kon tomb bi nga xamante ne ci la fas yéenee ànd ak ñun tey tomb bu mu xam la tomb bu mu yàgg gëstu la tamit tomb bu mu def ay taalif yu bari la tamit muy wàllu way way na ci lu jëm ci wàllu fiq am na euh, téere boo xam ne mi ngi ko tuddee làmp murit ci walu fiqh lako ko way am tamit way na tamit ci walu alquranul karim muy al adab fil quranil karim loolu tamit ba tey taalif na way na tamit ci lu jëm ci walu yoon wi muy madratu sayyid khadim tarikhan wa fahwan way na tamit ci lu jëm ci góor yàlla yi nga xamne ño fi nekkon doon liggeel suñu borom amna ci ño xamantene taalif na ci ñoom ku mel ne borom dëkk bi di borom Daaru Muxti taalif taalif na ci moom benn téere boo xamante ne mi ngi ko tuddee góor yàlla gi. Serigne Saliou Mbacke tamit mi nga xam ne kenn ku nekk xam na ab liggéeyam ci yoon wi moom tamit taalif na ci moom benn téere boo xamante ne mi ngi ko tuddee eh, jantub jamono taalif na ci yeneen wàll yu baree baree bari wala gi nga xamante ne ci la fas ànd ak tey taalif na ci eh, benn boo xamante ni ñu koy wax. muntaja'u ra'id lil wuqufi 'ala al xasaa'id kon euh, ci wàllu googu la fas yéenee ànd ak ñun tey ginnaaw nag xasida yi li ci ëpp ay way lay nekk kon ci njëlbéenu waxtaan wi incha allah danañu xamal suñu waxee way lan lañ ci jublu lan mooy way ñaareel bi tamit danañu xamal euh, Serigne Touba Xaadimu Rasuul euh, lan mooy lan la jublu ci taalif ñetteel bi tamit danañu andil xasida yi xeeti xasida yi yan xeet la euh, su jógee ci loolu ñu indil naka lañu war a jànge xasida ak ñan ñoo doon jàngal xasida Serigne Touba ak ñan ñoo ko doon bindal xasida yi su noppee ci loolu nag andil ñu li nga xamante ne ñun ñoo ko dugal ci biir xasida yi wala ay nit ñoo ko dugal ci biir xasida yi te bokku ci kon incha allah ci tënk rek noonu la fas lu waxtaan wi fas yéene doxe incha allah kon bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu fàttali mbooloo mi ne suba ci di ñaareelu fan ci weeru kor gi incha allah fas yéene nañoo ànd ak sëriñ Abdou Khadir Ba mu fas yéene ànd ak ñun ci yoonu murit ak internet muy lu am solo loo xamante ne lu muntu ñàkk ndax ginaaw mooy li xew ci jamono kon war nañoo xam naka lañ ciy doxe ak naka la. yi nga xamante ne moo nekk ci biir te war koo moytu tamit yooyu yëpp war nañ koo xam kon incha allah loolu la ñu fës loolu lañu ñu sëñ Abdou Khadir Ba fas yéenee baax yi suba incha allah kon li ñu def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Khalil Mbacke ci waxtaan wu am solo bii nga xamante ne incha allah moom la ñu fas yéenee baax ñu fàttali mbooloo mi rek ne ni nga xamante ne noonu lañ ko baaxoo defee rek eh, bépp laaj boo xamante ne aju na ci wàllu fiq incha allah suñ ko indee danañu ko jaarale ci kuréel gi nga xamante ne ñooy gëstu wàllu googu euh, ak tontu ci incha allah loolu tamit ba tey nañ ko daan doxale rek noonu lañ koy doxalee. Euh, laaj yi nga xamante ni moo aju ci waxtaan wi incha allah bu waxtaankat bi noppee rek incha allah laaj yooyu dafa yéen ci tontu kon dañuy def mooy dañu jox kàddu gi Serigne Khalil Mbacke ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéene baax yàlla ko yàlla defal taf defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk seen tur ak si seen sant di leen ndokkeel ci weeru tedd wi nga xam ne moom la ñuy um tey mu weer ramadan di ñaan yàlla mu defal ñu tawfeex ba ñu dugg ci jàmm woor ko ci jàmm te yàlla nangul ñu mbooleen mënuñ ci def ci ay jàmm yàlla ñu ngi jiital ci nuyoo bi sëriñ Sidi Mukhtar di ñaan yàlla mu yàggal ko fi lool te wéral ko te àggal mbooleem ay sembam di nuyu sëriñ Abbas mi nga xam ne mooy kilifa dëkk bi moom itam di ko ñaanal yàlla guddal aw lool te àggale mbooleem ay semb yi nga xam ne yéene na koo liggéey ci dëkk bi di ñaanal mbooleem kilifa yi nga xam ne bokk nañ ci njabootu Cheikh ba Faty te wuy seen boroom ci at mii nga xam ne moom lañ génn ka nekk ci bopp ba di sëriñ Cheikh Khady mi nga xam ne moo nekkoon ci boppu njaboot gi ñu koy ñaanal yàlla mu yokk ay leeram ak mbooleem njaboot gi nga xam ne dem nañ ci at mi di yóbbante nuyoo sëriñ Samat ci sëriñ Moustapha Absa ak mbooleem njaboot sëriñ Modaw Ball ak mbooleem kilifa yi fi teew yépp leen di yóbbante nuyoo ci moom di ko ñaanal moom itam yàlla yàggal ko fii ak mbooleem ay rakkam ak njaboot gi bu ko defee di ko sëriñ Modou Kara waxee léegi rek day ab thème boo xam ne dafa laaj jamono bu nekk ñu di ko jàngat ndax xasida jamono bii ñu toll ni ko ndaw ñi dëgmale ku ne xam na ne bu njëkk ni ñu ko dëgmale ak ni ñu ci xëre léegi gën naa yokk tax kon laaj na jamono bu nekk ñuy bokk toog di ci waxtaan di ci soppente ay xalaat ak nuñ ci gën a mën a jariñoo mu mel ni incha allah li ko waxee léegi su ñuy wax xasida mooy ay way kon baax na ñu waxtaan ci leeral xasida mooy lan su ko defee doog a ñëw ci tomb yi nga xam ne moom leeral la ko léegi moom mooy tënk waxtaan bi yépp xasida suñ ko waxee day mel ni mooy ab jubluwaay ndax baat bi mi ngi jóge ci qasada yaqsidu qasdan fa hiya qasida maanaam li nga li ngay jubloo wax moom la ñuy wax xasida loolu kon mooy woy loolu nag euh, pour nga def ko ñu nangu ne woy la faw day doon loo xam ne yow mi koy wax da koy jublu da ciy jublu woy waaye su fekkee yaa ngi koy wax te jubluwoo ci ay woy donte peese wu na tolloo ak woy itam lu tax ñu ko ay woy moo tax kon alquran gis nañ ci ay tëggin yoo xam ne bu ci nekk man nga ne ma baaxul sàngam ñoo tolloo waaye du ay woy ndax bi ko yàlla wax jublu ci ay woy yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis nañ mu wax loo xam ne aw bayit la woo xam ne soo ko peesee ba bayit rajas baxru rajas ñoo tolloo waaye taxul ñu mën ko jàppe woy ndax bi nga koy wax jubluwu ci woy ma anti illa isbuin damit wa fi sabilillahi ma laqit kon woy bi ma ko waxee kon day doon loo xam ne dañ koy jublu mu mat fukki woy fukki bayit walla juróom-ñaari bayit ñu composé ko ci baxaru yi nga xam ne mooy fukki baxaru ak juróom yi nga xam ne su fekkee say woy dëppoo na ak moom moom la ñuy tuddee woy dëggantaan woy dëppoo ak woy classique yi su fekkee nag am na lenn lu ci damm kooku ñu ko mën a jàppe woy wala ñu ko mën a jàppe xasida baxru yooyu yu bari la xam ne jërul guddal waaye mooy li nga xam ne euh, ci la mag ñi njëkk ñi daan waaye yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yi mu amoon ci lañ ko daan wayale sëriñ Tuubaa xaadim rasuulil bi mu ñëwee ci la def ay woyam yépp ci baxru yooyu xaj na nag am na ci yoo xam ne moom la tànn wooyee ca ndax yeneen yi ci des dafay baxru yoo xam ne dafa xaw a gën a jëm ci ay caaxaan moo tax baxru tawil ak baxru basit ak baxru rajas baxru kaamil baxru xafiif ak yooyu daal day mel ni moo ëpp ci li nga xam ne moom la jëfandikoo ci ay woyam donte sax nag am na yeneen baxru yoo xam ne mi ngi fi ñu di ko lim ba mu nekk fukki baxru ak juróom muy luy am jeexital moom wooy ci nit ki suñ ko composé jox ko àq ji ñu ko war a jox teg ko ci peesekaay yi ñu ko war a teg balaaxa bi ñëw kooku kuy ab yonent sax mën na mën na la yëngal yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, kàmb woy la ko ba mu jël bu mu solal jox ko kon woy dafay jeexital dafay jeexital ci nit ki ni ko imaamul Xasaali waxee nit koo xam ne nit ku normal rek la amul lenn lu sikk ci mom faaw way neex da fay jaxital ci mom su ko defee sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu momit gis nañ diko nari ganari dan way way sen way bala woy balaaxa beeg neexit wi tax na moom itam dafa ci daan ba lele nga gis ku ñëw way ko mu jël alal yu bare bare jox ko ba gis nañ sax ñoom koo xam ne bi muy tëj xasida gi mu ko doon woy mu ngi naan ma haz mat fay karimin xusnu ashar di julli ci yonent bi li fekk woy yu neex ñu ngi gësam mbag gi ki nga xam ne mooy ku baax ki ñuy woy nga xam ne soo ko yooyu muy neex di ming loolu kon di la wan am solo gu mu am solo moom woy bi yonent bi ñëwagut mooy kër yi mag yi fi nekkoon yëpp li nga xam ne mooy seen i diwaan alxuraan bi mu ñëwee pour nga dégg ko il faut nga delluwaat ci seeni i way ñoom ndax loxo piir ak arab piir ñoom day mel ne ñoom seen diwaan yooyu mooy dencukaay bi nga xam ne ci ngay mën a dellu xam ko pour mën dégg alxuraan wala nga mën a dégg xasida xadis euh, euh, su ko defee jërul ñuy guddal ci way yi baxaru yeeg liñ composé xam ne yii ci ay sabi picc lay jógee yii ci ay xeli fas ay xeli gileem waaye àla kulli lu ci nekk daal bi nga xamee ne kooku ñu wax xalil ñëw na moom moo ko génne ba wane ne baxaru bu nekk lii mooy li ko ci ay tafaaxil ak ay tëggin su ko defee ñu ñëw ci euh, euh, sëriñ bi euh, bu ñu nee xasida wax naa léegi ne il faut mu mat fukki woy wala ñi wax ne juróom-ñaari woy waaye ci mustalaxu murit suñ ne xasida day mel ni li ci ëpp lu sëñ bi bind rek moom lañ jubloo wax loo xam ne ñu ngi koy jàng muy ay salaatu ala nabi wala ay tagg yonente bi wala yu mel noonu daal day mel ni nun ci murit gi li bu ñu xasida loolu lañ ci jublu léeg-léeg sax nga gis loo xam ne rajas la euh, maanaam euh, wesar la waaye dañuy wax ne xasida la suñu labrar wesar la waaye dañuy wax ne xasida la muqaddamatul xidma sàcmo la waaye dañuy wax xasida la ndax moom lépp loo xam ne lu suñ bind la te ñu koy jàng di ko barkeeloo rek ñoom loolu bu ñu waxee xasida loolu lañ ci jublu gis nga tasawudu sixaar jawharu nafis xasida la waaye suñ doon lim xasida yi duñ ko ci limaale moom téere xam-xam la waaye lépp rek day dellu ci euh, ni nga xam ne ni la ko mu jàppe nga xam ne buñ ne xasida rek liñ ciy jublu automatiquement ñoom li ñuy jàpp ne moom la loolu yi suñu delloo ci mbindum sëriñ bi day mel ni day day ñaari pàcc mooy li nga xam ne daf ko bind ngir xel nga xam ne dañ koy jàng di ko tëral war koo xam ak li nga xam ne daf ko bind ngir xol nga xam ne da koy jàng rek donte xamul ci nekk itam waaye nga di ko jàng muy jaxitu sa xol donte léegi ci xol la jëm lu njëkk li ma njëkk wax waaye day jaar ci xel moom doog a ñëw ci xol loolu bëy boobu muy wax ne hadayta bi xaq di wa tasawufi wal fiqhi ayaali bi zikri ma salaati wa bil madxi lolu composé no indi na ñaar yëpp xadaytu bi àqdi wal tasawuf wal fiqh lolu moy téré xam xam-xam yi fiqh tasawuf tawhid yoy moy jawhar nafis maxaaliqu niiraan jinan moy ko dos ak yu mel non moy téré xam xam-xam yi mu talif ya ayali bi zikri max salaati wa bil mat lolu moy mooy moy salatu ala nabi ak jindi ci yonente debi sikar zikar sant yàlla wax xéwal yi ko yàlla may pàcc boobu loolu mooy li ñuy tudd xasida moo tax kon suñu xasida rek yooyu ñuy jàng di ko barkeloo di ko loolu moom moom moom lañu jublu ci xasida lu ci ëpp ci mbindum sëriñ bi nag li ko tax di taalif euh, bu ñu ko seetloo ci biir ay mbindam ay jubluwaay yu bari la bokk na ci ñaan ñaan yàlla ndax yàlla moo ne qul maa ya'ba'u bikum rabbi lawlaa du'aa'ukum bu dul koon ñaan gi ngeen may ñaan du ma leen faale moo tax li ëpp ci xaside yi mi taalif di ci ñaan yàlla ak di tawasul ak di toroxlu ak di ko ñaan ci xéewal bi tax boo xalee xasida مطلب الحسين يقول مقصد القصيدة الدعاء والشكر الجالبة إن شاء الله للزيد والنصر أنا كن نيان أك سنت يالا وخول مقدمة الخدمة مقدمة كي مطلب الفوزين موي ليغا خامني دي جيب موكو تاخا جوك سوني خول سنت يالا ايتام بارينا لوم كوي ديف تي بير خسيده سوني بوروم موكو ديغلي فاشكروني أذكركم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون سانت لنا كون ما سانت لنا فاتلكو لنا بلن محرم وحنا أقول وقصدي الشكر في الدور أزمنا lolu bari ñu koy wax ci mbindam ma ngi wax ci samay wax jubluway bi moy sant yalla rek ak dalo ko jukal biko julli ci yonent bi lu bare bare ci xasida yi suñu xoolee mawaahi bu naafiq li ci ëpp maanaam wax nga ne lu yonent bi la ak xar baaxam waaye itam ak julli ci moom gis nga wax na ci biir mawaahi bu ne salaatu sitta bi mat yu sitta taatihi batta ma tisaay juróom benn weer yi daf ko jël jagleel ko julli ci yonent bi rek juróom benn weer yi ci des mu jël ko jagleel ko tagg yonent bi nga xam ne kon at mi yépp julli ci yonent bi ak tagg yonent bi moom la ko xaajale bi ci dolli ko mooy li euh, ma ko waxee léegi mooy tagg yonent bi wax na nawaytu bi mat xii man ataani nawaaluhu wa inni bi ma lixtiira qatani yaaluhu kon madd ko bokk na ci li nga xam ne ay jubluwaayam la ci taarif xasida yi yàlla moo njëkk a tagg yonente bi ginnaaw bi nga xamee ne tërbiye na ko yara ko addabani rabbi fa ahsana ta'dibi ba mu yaru mu kañ ko xamal ko ne ko yow ku baax nga ku am jikko bu baax nga kooku ku koy tagg kon yaa ngi def li nga xam ne yàlla defal na ko te mooy wax ne wa innaka la ala xuluqin azim moo tax ay tagg loolu itam bari na lool ci biir xasidi sëriñ bi suñu xoolee jës bul xulóob li ci ëpp ak muqaddimaat tagg yonante bi ak wax ay melokaanam ak ngëneelam mooy mooy moo ci ëpp bi ko juróomee mooy wax ak nasaraan yi ci forme boo xam ne day mel ni da nga leen di jubbanti wax leen ni ñu war a mel wax leen ak dëgg yonent bi nee na afdalul jihaad yi كلمه حق عند سلطان جائر جهاد بي سي غن افيكاس موي فك بور بو واتيو يون غا واخ كو باتو دك لولو كون موتاخ خسيده يي باري باري سي گيج بي آه، دا فا سي واخ اك نصراني دي لن واخ في جوار تك سين تانك نا خن لولو موم لي ني واخ قصيده جهاديه نا خن فورمو جهاد لي loolu foofu foofu ci fu cadre boobu lay waxee ne inni uxaatibu nasaara turra foofu fi lay waxee inni uxaatibu nasaara turra li rabbihim fi ardi fi ardihim li maliki mudfarra fu lay waxee yaa jumlatan yaa jumlatan qad sallasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidu mu ne yéen mbooloo mi nga xam ne da ngeen a fekk yàlla boo xam ne kenn la seenu réer tax ngeen wutalu ko def ko ñett yàlla wax na ci wax yu bare ñoom ba di leen digal sax ne leen ngeen tuub ko tuubu tuubu loo yazawi taslisi fi ajalin wa saari'u qabla mawtin ba'dahu nadam di ko juróom benneel ci yi nga xam ne moo tax muy taalif mooy nettali xéewal yi ko yàlla defal yàlla nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis li la yàlla defal ci ay xéewal nettali ko nit ñi kon loolu képp ku yàlla defal xéewal itam di ko nettali ak di ko sante loolu li dugg ci cadre sant moo tax mu ne wafirtu wa bil alaayi inni muhaddisun bi kawni al mustafa wa huwa yaxfadu am naa li ma doon wut ci yàlla kon nag maa ngi nettali xéewal yim ma yim ma defal ci bi ginnaaw bi ma defee ma nekk xadimal Moustapha di ma sàmm di ma sirbaye kooku kon maa ngi nettali li ma lim may defal ci ay xéwal yi xam ne li gi ci cadre sant rek lay dugat moo tax mu ne bi ni'mati rabbil ali uhaddis muxmida baati libtidaain ahdathu maa ngi li xéewal yi nga xam ne moom la ma yàlla mu kawe mi defal waaye ci biir nettali gi ma di ci xamlewaale xam-xam yoo xam ne bidaa yi nga xam ne moo la fi ñu réer ñu indi woon ci laa koy effacé waale ci nett li gi may nett li xéewal yi nga xam ne moom la ma yàlla yi defal bi ko juróom-ñaareel mooy tasaare xam-xam ak jàngal bindeef yi ak dundal xam-xam loolu itam bokk na ci li tax ñuy bind kon pàcc bi ma njëkkoon a wax mooy xadayta bi xaqat yi wa tasawuf yi wal fiq yi yëpp lay duggaale ci biir yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na la an yahdiyallaahu bika rajulan waahidan xayrun laka min humri naam yàlla jubal benn nit ci yow nga wax ba benn nit gindiku wala nga jëf nit roy la ci jëf ji ba gindiku moo gën ci yow àdduna ak la ci biir loolu moo tax sëriñ bi eh, ay mbindam da ci ëpp mu jëmale ko ci jàngal nit ñi seen diine ak xamal leen seen lislaam ak fi ñuy teg seen tànk wax ne yamini alayha dayn xottin yuri sunan shafiin kafaani doona durren zawil baax yi yàlla mi nga xam ne mooma wala yonent bi nga xam ne moo fegal lor way bew li sama loxo bii warlul naa ko ci bor boo xam ne jamono bu nekk damay bind ay taalif ay téer yoo xam ne day wane sunna su yonente bi yonente bii nga xam ne moo ma fegal lor yi ñu bew yi dana naa maanaam warlul naa ci sama bopp bor boo xam ne jamono bu nekk damay taalif ay taalif yoo xam ne day wane sunna moom mooy day jàngale xam-xam di wane sunna su yonente bi alayhi salaatu wasalaam am na fu mu wax ne daani ilal xotti nasiatu lil wara bokk na ci li ma tax di bind mooy laabiire laabiire mbindeef yi am na ay lettre yu mu bind nga xamul bi mu nekk ci géej gi la waaye ci biir lettre bi mu ngi ci wax ne tanbihun allazi zukira fi lwasiyati min tarki lkitabati wajjahun ila gayri basu lshariati walxaqiqa wa amma basuhuma bi taalif nawman wa nasran fa tarkuhu xaraam am lu mu wax ci mbirum bind ba noppi di leeralaat ci biir nag ne bi may wax bàyyi bind jàngale lislaam muy charia ak jàngale xaqiqa muy tasawuf ak ni nit di fóotib xolam ba mu set nee na yooyu bokk ci yooyu moom euh, di leen taalif ci ay woy ak i wesal nee na loolu day farata ci man bàyyi ko ba dafa araam ci man kon loolu mooy pàcc yi nga xam ne Euh, li ci ëpp ci ay bindam foofu la koy jëmale donte sax am na yeneen euh, jawaanib maanaam yeneen wàll yu bari waaye li ci ëpp daal ci ay mbindam ci wet yooyu lay mel ni moo koy tax di bind ñu daal di gis ne kon kiy jàng xasida mi ngi julli ci yonante bi mi ngi tudd yàlla mi ngi sant yàlla mi ngi tàgg yonante bi mi ngi jéggulu istighfar tom boobu sax ci la bokk yooyu yëpp fi yoo xam ne sëriñ bi dëxëñ na ci biir xasida yi nga xam ne yow booy jàng xasida jàppal ne yaa ngi def yooyu muy wax yëpp ndax yooyu yëpp mu ngi ci biir su ko defee nag xasida yi ay xeet yu bari la yu wuute ci ay forme am na ci yoo xam ne dafa gudd lool am ci yoo xam ne dafa gàtt am ci yoo xam ne dafa diggu doom lu mel ni nooru daal yi ni xasida bu gudd la mu ne mu fàtte woon Bichri mu fàtte woon Bichri bu mag bi bu mag bi boobu bi ñu koy bind bu njëkk lu gàtt la woon ndax fukki waay ak nangam la woon waaye sëriñ Mamadou Bachir ak sëriñ Modou Lamine Diop Dagana ñoo jukkiwaat ci euh, xasida ci ci diwaanu alfunkul machon yokkaat ko ci ba mu nekk xajma bu toll moom itam kon bu rëy rëy la muxaddamatul kubra moom it ci yu mag yi la bokk muxaddamatul xidma ci yu mag yi la bokk am na ci yoo xam ne dafa digg doomu lu mel ne jasbul xulub ak mawaahib bu naafi ak muxaddamatul amdah ak mafatihul bishr bu ndaw bi ak yeneen yoo xam ne sax moom dafa gàtt nga xam ne fukki bayt lay doon wala juróom-ñaari bayt xaj na wala fukki bayt ak ñaar lu mel ne yokki jës bu yokki mawaahib bi rab yi bu ma yasrahu ak yu mel noonu yooyu xasida yu gàtt la xam ne ci yoo xam ne sax benn bayit la yoo ci yoo xam ne sax ñaari bayit la allahu min kulli karimin akramu ak yu mel noonu su ko defee kiy jàng nag muy bàyyi xel ne jeexital bi xasida yi def ci kiy jàng takkuwul ci guddaayu xasida bi ne na ñoom dañuy jàpp ne lu xasida gi gën a gudd ci la jeexital bi gën a nekk fekk na xasida gi jeexital bi tëkkuwul ci guddaay bi wala ci gàttaay bi waaye la waaye ci jamono bi ko sëñ bi defee ca la ca la ca la tënku moo tax sëriñ bi digal murit yépp bi mu jugee ci géej gi ne leen koo ci xam ne bëgg nga faju aaju àdduna ak alaaxira li may def ci ginnaaw géej gi te mooy li tàmbalee gànnaar jolof ba njaareel loolu nga di ko jàng mooy li nga xam ne yàlla nangu na ko xam le ne la jiitu géej gi yàlla nanguwu ko li ci biir géej gi diggam ak boromam la dégg nga moo tax nee na mu ne loolu ma tere ñu tuxal ko wala ñu di ko tasaare ndax jihaad la ak zikar ak loo xam ne sama diggante ak sama borom la xaj incha allah dañ ko leeral ci kanam mu xam le ne kon li nga xam ne mooy ginnaaw géej gi mooy li nga xam ne moom la yàlla nangu donte itam li jiitu géej gi moom téréwul ne bu ko kenn jàng waaye daf ne ku bëgg ko aajo na ñëw ci li nga xam ne mooy ginnaaw géej gi ndax suñu seetloo li jiitu géej gi lim ci defoon lépp bi mu ñëwee daf ko taalifaat mawaahi bi njëkkoon na koo taalif daf ko taalifaat bi mu ñëwee jasbul xulóob daf ko njëkkoon a taalif xamit rabbal alamin la xasida gi tàmbale woon bi mu ñëwee daf ko taalifaat ak yeneen yu baree bari yoo xam ci téere yi xam sax ko talihat, taalifaat eh, gis nga maxaale eh, ko tati mu nawiru sudur danaka mu layiru sudur jikko na talif bi ñëwee talifat taalifaat mu layiru mu sudur nga xamne kon li ginaaw geej gi dal day melni mom la jappé lo xam mom la mom la mom la yalla nong way li nga diko di ko defal ci la ko defal lele nga gis xasida gu gatt ci li ma doon wax léegi yu yu gatt yi xasida gu gatt yalla may ko ci lo waxul ne may na ko ko ci guddi ci misaal saana ilaahi bil munajihati wa abadan axna yadi an haati wax na ne dafa taxaw taxawaayu mbooleem xare yi yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam xare na ko te xasida googu soo ko xoolee fukki way ak ñaar ci lay toll boo xoolee huda ilahi zahzaha ak fusq bi zarfi alxasanat mu ñaan ne yàlla na nekk xasida go xasida yoo xam ne mbooleem li ko jiitu te yi ko jiitu yu guddi yu nga ci yii na gën a na la gën a dàqal ci yi ko jiitu yépp kon loolu mooy li nga xam ne noonu la ko séddalee ci li mu taalif lu jiitu géej gi ak biir géej gi ak ginnaaw géej gi waaye suñu waxee bu waxee moom sëriñ bi ne nungul nungu wuñ lu jiitu géej gi tekkiwul népp bu kenn jàngati ndax ak ñàkk a dongulam bokkul ak ñàkk a dongulu keneen la ñuy wax ne xasanaatul abraar sayyiaatul muqarrabiin la lañu ko nungulul moom nam koy jàppe ak leew murit bi boo koy jàng lam lay jariñ bokkul moo tax kon teewul yooyu it ba léegi yu ñu jàng la ndax Matlabul Fawzayni euh, ku ne xam na ne ak sindiidi ak toxfatul mutadarain ak yu mel non la tamuy dem ci geejgi la len talifan waye xam nga ba léegi ñu ngi ci jang ñi koy jang di ci di ci jariñu di ci say ay ci bir xasida yi amna ay diwan yo xamne euh, dajale nañ ko yo xamne ne jamono yi sëñ Abdou Lahad la am na diiwaan yoo dañ ko teunké alcorane ak yo xamne yuñ tënkewal alxuraan ci nekk diwaanu boppam la ak diwaan yoo xam ne ramadaan xasida yi yi mu def ci ramadaan rek moom lañ ci dajale ab diwaan la ak diwaan yoo xam ne yim tënkee safar weeru safar la ci def yooyu rek moom lañ moom lañ dajale ak yoo xam ne yi muy wax ci affaire gàmm rek moom lañ dajale ak yoo xam ne Serigne Saliou la anhu moo ko digle woon ñu mool ko ñu tudde woon ko sas wi nga xam ne ñu nekkoon ci daara ji ñoo ko daan jàng di ko mokkal nga xam ne li ëpp ci xaside yi ñu siiw yi ñu ngi ci diwaan boobu ay jësu bu muqaddamat muwaahibu boobu itam ci diwaan yi la ak alfulkul mashhun boobu moom sëriñ bi moo ko dajalooloon boppam ci ay ci ak nekkam wutalan ko jaafira wutal ko ak gaal daaj lul ko am néeg dugal ko ci biir néeg kon loolu mooy ci gàttal yi nga xam ne moo aju ci mbindum sëriñ bi ci wàllu dañ ko doon séddale ci li jiitu géej gi ak ginnaaw géej gi ak xeetu yu gudd yi ak yu gàtt yi ak jeexital yeeg yu mel noonu ñu ñëw ci jagle yi ko yàlla defal ci xasida yi lu bari buy bind moom sëriñ bi ba xasida gi jeex da ngay gis mu tënk ko wallahu yaxtasu bi rahmatihi man yasha su waxee li ko ci yàlla may ba noppi daf ne wallahu yaxtasu bi rahmatihi man yasha wallaahu zul fadlil azim zalika fadlullahi yutihi allazi yashaau wa qaala li xud bi juzi gis nañ ci jeexu tasawut si xaar ak santulaab wax ci lu mel noonu ginnaaw bi mu waxee li ko ci yàlla may ak jagle yi ko ci defal kon xasida yi bokk na ci li nga xam ne yéeme na ci lool muy bariwaay bi waaye li ci gën a yéeme du bariwaay bi waaye mooy nongu nongu gi ko yàlla nongul lépp yaamaan jamia xidami taqabbala ndax euh, suñu xoolee bariwaay bi kiimaan la ndax ni mu ñàkke woon jot ak li mu daan toggoo ci ay jaamu yàlla ak li ko daan dikkal ci nit bu ñuy waxee ne taalif te lu toll ni ci téere day mel ni lu loolu wurta mën a nekk loolu kon kiimaan la waaye nag kiimaan gi gën a kiimaani daal mooy li ko yàlla may ci xasida yi ba kenn ku nekk yaa ngi koy jàng di gis loo xam ne ci xasida gi ngay taxawal yaa ngi ko gis nga xam ne mbooleem li yàlla may ci loolu loolu daal mooy li nga xam ne mooy di gën a kiimaane donte bariwaay gi kiimaan la waaye bari bariwaay bi suñu delloo ci euh, mawhiba bi nga xam ne yàlla daf koy may léeg-léeg nit ci wàll woy léeg-léeg nga gis ñoo xam ne mën nañu bis bu seen ñu bi junni woy am na ñoo xam ne sax mën nañu euh, seen waxtaan wépp doon ay woy kon loolu xaj na buñ ko xoolee buñ ko tat nattee foofu kiimaan la waaye léeg-léeg nga gis waaye li gën a kiimaan daal mooy nangu donte ngay dégg léeg-léeg ñuy wax bind na sept tonnes 7 tonnes yoyu li ci ëpp tubaab bi biñ koy jëlé ci géej gi diko ko delloosi bagage yi nga xamné mom la yoron nga xamné tafsir yi ak yépp daf ci nek biñ ko peesee mo nek 7 tonnes ñu japp né kon lim taalif lepp moy 7 tonnes fekk tafsir yi ak téré alcorane yépp dañ ko ci limalé xañ na baatu bind na 7 tonnes fofu lay jógee wayé ñu bàyyi xel né loolu doon lo xamné lu lu lu lu dogu téye lim taalib lépp 7 tonnes 500 la kon daal li gën li kiimaan gi daal mooy parke bi yàlla def ci mbindam ba nga xam ne lu mu bari bari lépp yàlla nangu na nga xam ne xasida bu ci nekk ka ko taxoo moom di ko jàng mën na wax lu mu cay gis ci ay ngëneel ak i njariñ yoo xam ne eh, gisu ko ci beneen ba ci des nga xam ne lu xasida gudd gudd am na koo xam ne moo ko féetewoo mokkal ko ci murid yi nga xam ne day mel ne nii murid bu nekk amee sëriñ nii la murid bu nekk amee ak xasida ak boppam loolu nangu bi ko yàlla nangul moo tax euh, mu deme noonu nga xam ne xasida yii ñuy wax ne boo koy jàng day faj tawat si euh, nu tuddati mat la bu shifaa yi yaa man yarumu dafan kulli daay fala tufariq matlaba shifa yi nga xam ki am tawat di jang matlab shifay yalla man nako ci safara inni aqulu in inni zu khajalin bok na ci yi nga xamne ki yow tawat di ko yalla ya nako safara ko ki nek ci ay khat khat di jang wa kana haqqan yalla man ko indil safara ndax ci ay khat khat la ko sëriñ bi defewon woon ci ay jafé jafé yu naari newon mu talif ko ngir ñu tàggoog xat-xat yooyu rabbi bi maay soroon ci ay xat-xat moo taxoon mu def ko yàlla dogal xat-xat yooyee lépp lañ doon tiit di ko séntu dara amu ca kon yooyu bokk na ci yi nga xam ne de bu nekk ci ay jafe-jafe ak it ak ak xat-xat loolu bokk ci li koy waral li koy li koy li koy tàggante li ci gën a yéeme nga xam ne da nga naan da ngay ñu ne xasida sàngam ñi koy jàng di ci gis loo xam ne euh, yàlla sax sëriñ bi ñaanu ko ci biir ñaanu ko ci biir xasida loolu itam euh, dellu ci nongu gi nga xam ne rek moom la ko yàlla nongul nga xam ne mën nay nettali lu ko yàlla may ak jagle yi mu ko defal yow ngay jàng xasida gi di di ci am leneen loo xam ne bokkul sax ak loo foofu mu doon waxee boo seetloo xasida yi bare bare loolu danañ ko ca gis lu bare bare mu mel ni kon eh, ci biir liggéey bi muy liggéeyal yonente bi ci la wax ne xuddal wa nuurun wa ridan wa baraka fajaani fi mat yi faxri mudrik ngërëm jub ak leer ak ngërëmul yàlla ak barke bett na ma ci liggéey gi may liggéeyal yonente bi nga gis ne loolu ñeent yooyu ni muy tegaloo may yàlla guy ñëw ci noonu rek lay tegaloo ak njub mooy jiitu leer ñëw ngërëmal yàlla ñëw barkeel doog a ñëw barkeel googu nag mooy indi li ñuy gis lépp ci biir xasida yi noonu mu demee nag te ñëpp gis nañ njariñ li ñëpp dëgmal nañ ko baax na ko ñu xam ni ñu koy jëfandikoo moom xasida mën nañ koo misaal ci aw ñam wala ci ay médicament suñu ko misaalee ci euh, aw ñam ñam ki koy lekk daf koy suural daf koy am na njariñ li muy def ci yaramam muy dund su ko defee balaa lekk na raxas loxoom de kudd mu raxas kudd gi wax bismillah lekk lu yem bu ko defee bu suuree jub loolu mooy balaa jàng xasida na jàpp ba set jublu la jàng ko te jël ca lu yam su ko defee mën naa bañ am benn jafe-jafe waaye ki nga xam ne foo mu tëbee jàng xasida sang farata wala du japp jamono bu ne fu ko neex la koy jange kooku lu ko ci dal bu mu ne khassida gi la waye mom moko ko yóbbee bu jël lu yam lu digg dom serigne bi dafa wax ne mbir yépp li ci gën moy lu digg dom waye tam lu sax ndax lu bari saxal ko dana jafé kon jël lu yam dal lu digg dom te fexé bam sax jëf yëpp bu ci gënal yàlla mooy jëf bu sax kon kiy jàng xasida ñu ko defe noonu da ci jël loo xam ne lu mën a yàlla la te fexe ba man koo saxal am na ku ma benn mbokk doon nettali bu yàggul nee nag suñu Abdou Lahad la nekkoon dafa suñ biir suñu Abdou jox ko mu muxaddamatul xidma mu mu mu koy jàng bis bu set juróom-ñetti yoon di ko jàng juróom-ñetti yoon ba benn bis rek aal gi dikkal ko mu ñëw ci kër sëñ bi daal ne sëñ bi maakaawe sëñ bi léegi waleen ko mu ñëw jébbu maakaawe sëñ bi léegi na sëñ bi ñëw jokk ci man waaw ah, bi sëñ bi xamee ne li waa ji sotti ko na mu ne nañ ko yóbbu faje ko bi ñu ko fajee bu mbir bi mu ñëwee sëñ bi ne ko diw mën a ma ne ko kaf ceeru kafe bañ la ko taajalee nga naan ci benn kaas rek a tax waaye jublu nga naan lépp loolu moy xasida yi seigne bi taalif yeb so beugé jang lepp da nga am ay jafe-jafe motax seigne sëñ da na wax ne amul awsas da ngay xol li nga ci àttan rek nga yam ko te mu don loo xam ne mën nga ko saxal suñu dello itam misal ko ci garabu docteur mu médicament yi garabu docteur yëpp ñoy fajj waye du ciagne yow bo jot rek dang koy nane waaw da ngay dem ci docteur bi mu bindal la mu bindal la maanaam ordonnance nga dem ci pharmacie bi mu jox la garab gi boo ñëwee ci pharmacie bi garab yi nga fekk yëpp mooy faj waaye du caagin da ngay ñëw rek jël bu la neex dem naan daf lay won yi nga xam ne moo baax ci yow nga jël ko di ko naan naka noonu xasida itam ca jamono yu mag ña kenn ku nekk ña nga nekk seen ron chaque part bu nga ne ñoom ñoo lay tànnal xasida yi ngay jàng jox la ko mu nekk wér na nga di ko saxal di ko jàng léegi nag kenn ku nekk da ngay xool xasida gu la neex rek ak mën a doon nga saxal moo tax yenn yu bare bari yu am di am noonu su ko defee euh, ñi jàng xasida di ko yëkkati itam ñuy xool euh, ni ñu koy yëkkatee loolu dinañ ci ñëw ci kanam sax euh, am na pàcc boo xam ne ñuy yëkkati xasida naa danañ ko ci leeral ñu ci àggee waaye daal kii yor xasida yi mu di ko warmaal te balaa jàng xasida mu jàng dog bi mu war a jàng ci alxuraan bu ko defee doo ko jàng euh, xasida yi nga xam ne moom la war a jàng su ko defee bu koy jàng itam na xool nusxa yi nga xam ne mbind mu wér la te bañ a wut ay xasida yoo xam ne dafa bari ay yàq wala toppuñu ko loolu itam danay tax yow li ngay jàng ay yàq ngay jàng moo tax kon di xool nusxa yu wér yi yi nga xam ne mbind mu wér la nga ko ci jànge loolu itam lu am solo la su ko defee wax naa léegi ci xasida yi nga xam ne sëriñ bi daf ko def ci géej gi nga xam ne dafay am jeexital lool ak yi nga xam ne ci bi muy jug di dem ci géej gi la koy def xam nga am na asmaa ahlu badr am na muxaddamatul xidma am na xasida goo xam ne ci biir géej gi la ko def sëriñ Mor Lamine Diop Dagana mi ngi wax muy raditu anil laa muy boobu nga xam ne euh, bi mu defee jàkka ji te waa ji sempi ko mu aalu bind xasida goo xam ne mu ngi ko tënk rabbana axrijna min haazihil qaryati zaalimi ahluha xasida googu sëriñ Mor Lamine Diop Dagana mu ngi wax ci biir ne ku koy jàng na ragal yàlla ci bañ cee fayontoo ndax aal bi ko sëñ bi defee yow mi koy jang djublu ci xex wala nga djublu ci mana man na jaxital man na gaw lol so djublu safan jubloo safaan ba nga ragal yalla dañ ci djublu ab safan wala ngay di ci def lu non amna khassida yo xamne euh xam ni ko waxe legi daf lay xir ci deddu aduna lolou ñu bari setlu nañ ko ci melni euh ki koy jàng tey ndaw soo ko bëggee jël di ko jàng fukki yoon wala fukki yoon ak juróom te nekk ab commerçant ah, bu yàggee dana mujj bu client day ñëw mel ni gaynde day ñëw gule gule wut loolu itam ki ñi ñi ñi ndaw mën nañu bàyyi xel lu mel noonu bokk na ci yi nga xam ne euh, dañ ko fent muy lu bes lo xamne mag ñi xamuñ ko won te mu mat di bayyi xel bokku na ci yoyu ak nga diko ko dem ba ci bir gi jël wenn bayit diko ko bàmp liwum nangami yoon te señ bi bindul ci bir nañ ko bàmp nangam yoon lolu aw sos la woo xamne euh matul di def ci bir xasida yi ndax budé dee ismul abraar la ñuy yoon wala juroom yoon wala nangam bind da koy bind ci wet waye nak su fekké da nga jël wakaan àqan jël ci bayt woo xam nga da ngay non da nga bamp nangam yoon kooku day melni du duggatu ci jang xassida waye day melni ni dugg ci benen cadre bo xam bokul ak li taxoon a jóg sëñ bi bokk na ci loolu ñen ñi nga xam dañuy top seen xër ba japp ne sax jàng xasida la ñu war a def waaye waruñu jàng alxuraan te fekk alxuraan ak xasida lu ci nekk ak li muy def ci murid bi te yëpp it sëriñ bi def ko daan digle moo tax kon soo ko mënee bala ngaa jàng xasida nga jàng dog bi nga war a jàng ci alxuraan doo ko jàng xasida yaakaar naa ne mooy tax xasida jeexital bi di gën a am ci yow mi jàng loolu bokk na ci loolu ci yenn téere yi ñuy mool gis ñuy wax ay jagle wala ay may yo xam dañ koy tuddu ci ak xasida te yooya sëriñ bi wax ko ci xasida bi nga sukkandiku wo ci lo xam sëriñ bee ko wax itam lu maddi di tandiku la ndax mo mooleeb téré dal ni xasida gi nangam lay jariñ te sëriñ bi wax ko loolu yaangi sof sos leneen lo xam ak li nga xam moy mooy way sëriñ bi donte sax yow taj am nga tajriba ci loolu jàng nga ko ci aaju sàngam faju waaye wuroo jox atte ba nag mbooloo mépp ne ku ko jàng loolu rawatina nag nga di ko móol di ci bind loolu di wax ne loolu mooy mooy jubluwaayu xasida gi bokk na ci yooyu euh, ñi ngi dégg jéeg-jéeg rek ñu ne xasida sàngam sëñ bi defu ko loolu itam lu wër di ndax lépp loo xam ne sëñ bee ko def jublu murit di ko jàng nga fexe ba dëdduloo ko murit bi te amul ay argument yoo sukkandiku loolu yaa ngi sosu sëriñ bi moo tax kon bala nga ne xasida sàngam sëñ bi def ko war nga def gëstu bu xóot mu wóor la ne lii eh, la dem nga la ko siiwal wala nga ko am gis naa ku nettali ne dafa doon woon sëñ bi ak xasida bu noppee mu ne ko bëyit bi de dégg naa sëñ bi defu ko nga ko ah, man de noonu laa ko ci gise waaw loolu mooy ak maag waaye jékki-jékki rek jël engagement ni xasida sànkam sëñ bi defu ko loolu wóoru ñi nga xam ne nag yàlla may na leen ci am na ñu ci yàlla may loola bañ ci defee gëstu bu xóot ba mu wër leen ne loolu noonu la demee man sa caa sukkandiku bokk na ci yu mel noonu muy créer ay bayit ay ak xasida koo xam ne xasida gi moom bayit yëpp sëñ bee ko def waaye nag ni ko composé sëriñ bi def loolu itam léeg-léeg mu am ci marché xasaayit xasida alam nasra lu tasaaroo la bayit yi sëñ bee ko def waaye ni ko composé loolu xañ na koo xam ne yëg na ne alam nasra ñenn ñi neen day joxe wërsëg ñu daal di jël xasida goo xam ne dañ koy tudde noonu wér bu ñu ko moolee mu jar loolu itam lu mat di moytandiku la te mi ngi am ci yu mel noonu sayid xalullahu baada xusri yusran sëriñ Moustapha Xasida wax na ma ne loolu moom itam sëriñ bi composé wu ko noonu waaw ak ak yeneen yu bari yoo xam ne xaj na neex a guddal di ko tudd am na waaw lu mel noonu bari na daal am na ci yoo xam ne sax xañ na maanaam yi euh, sëñ bee ko wax waaye woy yi sëñ bi mën na ko bañ a def yëpp bari na ci biir bari na ci biir xasida yi waaw bari na daal loo xam ne xañ na du ñàkk sax buñ demee ba jëmmi jamono ñu taalifal ko ab téere boo xam ne ni addis yi nga xam ne dañ koy askanale yonent bi te defu ko naka noonu itam xasida yi nga xam ne dañ koy askanale sëñ bi te defu ko ñu beral ko téere boo xam ne boo ko yëree gis ne lépp kon li bokkul ci xaside yi ñu ngi nii dañ di ko ci dugal am na ci yoo xam ne sax dafay jiitu sëñ bi lu yàgg yàgg lu mel ni kalaamal xaddi man laa yu man ak yu mel noonu gis nañ ay yoo xam ne ci biir lu mel ne lasraar lay dugg lu mel ni ni ñuy seete ab sëy isaarum tas bi jën fokk ismaam turit ñu bari dañoo wax ne sëñ bee ko def ak itam lëmewul noonu ak lakkasun niyatun saxakun rayas yooyu yëpp defe naa ne jiitu na euh, sëriñ bi xaj na waaw bu ko defee loolu euh, itam lu mat di bàyyi xel yi nga xam ne daal dañ naan sëñ bee ko def te defu ko ak yi nga xam ne dañ naan sëñ bi defu ko te fekk sëñ bee ko def day am lef moo xam ne dafa jar xóotal ak gëstu li nga xam ne xaddiis ñi futti ko woon dem jàngi ko spécialiste ca ku mel ni Buxaari yi imam Malik ñu mel noonu loolu it lii daf ko laaj dafa laaj ay joxóot effort yu rëy pour mën a euh, saxal baa nga dàq bokk na ci yooyu nga xam ne yow li ngay jàng da koy jàppe lu bari di ko yéem lu keneen di jàng nga di ko xeeb nga xam ne daal yow day mel ni kamiya maanaam quantité bi ngay jàng quantité bi nga yaakaar ne moo am solo fekk yéeni yëg pas-pas bi day mel ni mooy li am solo moo tax léeg-léeg nga gis kuy xeeb lu keneen bi jàng te fekk la keneen bi jàng moo ëpp jeexital ci moom li muy jàng ndax sa xol nu mu sete ak sa yéene ak sa pëste fu mu toll la ngay jàng lu mu néew néew mën naa ëpp doole la keneen di jàng te amul pas-pas la wala amul yéene ji wala amul teewlu la gis nañ naar boo xam ne dafa daan def bu ñuy jàng xasaayit jamono ci sëñ Modou Moustapha Tindodi suñ ko nee ñëwal jàng dafay wax ne man sama xasaayit sama xol attanul xasaayit ba benn bis ñu ñu ñu man manee ko ba mu ñëw bokk ci njàng mi fekk boobu ñu ngi jàng xasida googu nga xam ne mooy ميمية القلب مني في ذا اليوم قد صلم من كل رين وبرحمن قد علم بيو جانجي با سي ديغ بي ريك واجي خاج فات دانو دالي فات غرالي غيس كوكو موي جانجي سي قصيده لو نيو نيو خول با خاجنا نامو فامو تول مستوى بام تول نونو ديكو لو خامني كينن مانا جانغ لو بري لو تول nga xam ne yooyu yëpp ay ay tolluwaay la ak yoo xam ne ay mën di xàmmee ak ñoo xam ne xasida gi ñuy jàng dañuy jàpp ne rek moom la ñëpp war a jàng ki jàng jàllibatu maraaxi ak ki jàng bishri bu gisee nga jàng geneen day bëgg nga bàyyi yooyu ñu fekk ci xasida gi nekk moom loolu itam lu lu loo xam ne kenn ku nekk ak ak xasida dañ la tànnal wala ba nga xam ne moom nga tànn féetewoo ko ñi nga xam ne kenn ku nekk ak sa wasila sa sëriñ ba nga euh, féetewoo ak noonu sa xasida nga féetewoo waaye am na ñoo xam ne dañuy bëgg rek xasida gañ nekk ñëpp ci lañ war a nekk jàpp ne sax yeneen yi ci des amul jeexital bii rek mooy bi nga xam ne mooy bi wér bokk na ci yooyu te loolu moom ci jàng yëkkati jàng yëkkati la maanaam di tudd ay sëriñ diw sëñ nangam daal di wax a bayit loolu itam ci lii yokkal sëriñ bi la bokk kuy jàng xasida da ngaa war a yem ci li sëriñ bi bind rek waaye di tudd turu sëriñ léeg-léeg sax nga teg ca bayit woo xam ne waaw kii wax naa day wax ne yaa sëñ nangam naa il kawaaxiba nga xam ne xamul naa il kawaaxiba li muy firi loolu kooku bu yemoon ci wax rek ne ko suñ waxee loolu mën na ci bañal ak kooku nga xam ne eh, suñ nangam tooboo ilallah waaw loolu waaw su ko defee yooyu yëpp di yoo xam ne li man di bàyyi xel ak di ànd ak jigéen ñi di fecc li nga wër baas yooyu yëpp ay xewet la yoo xam ne eh, ñi jàng dañ ko war di bàyyi xel Euh, wax ne mépp njàng mu yëkkati moo xam ne yow mënoo ko jàngal sa sëriñ te mënoo ko gungee am néew moom mu njàng euh, mat seetaan ak di toggamtal bay di di ko def noo xam ne daanaka kiy déglu du xam sax li nga jubla wax lu mu doon man bari na ci xasida yoo xam ne bi ma xàmmee laay doog a xam ne lii ndeke loolu lañ ci jubloon xattaa baxal biya danaa ko dégg ñu koy jàng njàngin boo xam ne booba xawma jàpp woon sax loolu ay arab la ba woon bokk na ci loolu di jàng te sa kàddu neexul xasida ki koy jàng dafa war a neex baat kiy bind xasida dafa war a rafet loxo noonu la ko sëñ bëgge woon kiy jàng kàddu dafa war a neex waaye bu sa kàddu neexul ba noppi nga bëgg a jàng loolu itam léeg-léeg mën na mën nga tànqal sëriñ bi ngay jàngal wala mbooloo mi wala sax dem ba neexitu xasida yi ñu doon yëg nga xañ leen ko am na ku mas di jàngal sëriñ bi baat bi naqari lool sëriñ bi bëgg mu bàyyi waaye ginnaaw day jàng itam mu mu mu sëñ ma sàmba jub dem woo ko ne ko sëñ bi nee na nga ñëw bàkkeelu ci kafe gi bi mu ñëwee naan kafe toog xam waxtaan jàpp ko demat waaye ala leen dal baat bu neex ñi daan jàngal sëriñ bi ñëpp seen baat dafa neexoon gis nañ sëriñ Mayib Guèye sëriñ Ibra Bouba Fall euh, ñëpp bu ñuy jàng doo bëgg ñu bàyyi bokk na ci loolu mbind mi ngay bind mbind mu rafetul ñu koy móol loolu itam kiy bind khalimam rafet ñi daan bindal sëriñ bi ay xalima yu rafet lañ yoroon ba xoolee mbindum sëriñ ma sàmba ni mu ko daan defee mu rafet di ko dessiné loolu moom mooy ni ñu war a bind xasida loolu mel na ni sax am commission bu sëriñ bi taxawaloon boo xam ne ñii bind xasida yi bala ñu bind dañ ci diisoog commission boobu xëy na wax mu loolu ñu dox ma léegi waaye ñu topp ko te ki koy bind itam doon ko mën a bind loolu loolu lu am solo la te xasida gi doon koo xam ne gu war a tasaaroo la ndax tudd nañ ci yoo xam ne sëriñ bi waxoon na ne tere naa ñu tasaare ko muy yi ne ci biir géej bi loolu itam bu gi doonee gu war a génn ñu génn ko loolu itam ci am solo la bañ a génne koo xam ne te bari na ci yoo xam ne ci jamono suñu ablaat dafa digle woon ñu bañ koo tasaare bañ ko mool ñi daan jàngal sëriñ bi ndax jàng xasida yëkkati lu fi yàgg la jamono sëriñ bi bi xasida amee rek la loolu am sëriñ bi amoon na ñu ko daan jàngal ñoo xam jamono bu nekk dañu féete woon ca kër ga ci mel ni sëriñ Ibra Buuba Faal nga xam sëriñ bi tëye na ko fa moog waa këram ñëpp ngi dëkkoon bor yi ciers yoyu waye daf ko indi la ko ci kër gi ne ko yow sama xasida yi moo tax yàlla bind la nga xam jang jàng rek mom da féete wo ci kër gi wax na ne jangal na sëriñ bi ba sëriñ bi jox ma ñamu àjjana bokku na ci ñoo ñu ko daan jangal sëriñ may geey moom nga xam moom itam ci waa kër suñ jànk si Masamba yi doon moom suñ Ibra Buubu Faal moom la daan roy suñ bii suñ Ibra Buubu Faal wax na ne léeg-léeg day bu ñëwee sëriñ bi daf koy wax na ko demal ci kees sàngam su demee ci kees sàngam bu taxawee nee na day mel ne am na am riir bu muy dégg moo xam ne daal day mel ne mooy indi son yi ñuy daaj yi ñuy daaj yi nga xam ne daal da koy déglu di ko déglu ba takk daaj bi bu ñëwee jàng ko ci xasida dëgg nga xam ne moom la ko jàngaloo nga xam ne kon daaj bi baree bare jamonoy sëriñ bi la génn am na ci yoo xam ne sëriñ bee koy jàng moo ko daan jàng ñu dégg ko mel ni mel ne Mawaahibu boobu nga xam ne moom euh, waa barsàq yi soxna yi roy ko ci moom mu ne leen ni ma li ma waxee ne wacc xam laa mi mat taxanaat gaal xurul xiinu boobu moom ci moom lañ ko déggee waaye yéen ci des ci bari kooku ibra buuba moom day dem taxaw ci koñ rek ko defee riir mi ni muy dikke ci la ci la daaj bi génne moom mu ñëw daajal ko sëñ bi su ko defee nag sëñ Mayib Géey fekk boobu moom mi ngi ndaam su ñëwee njaareem euh, jël daaj bi bu demee yóbbu ko fa ko defee ci lay tasaaroo sëñ Yuusu Ndaw ci jàngkat yi la bokkoon dégg nga ginnaaw bu loolu jàllee nag ñi nga xam ne ñooy magi sëriñ bi ak waa kër kenn ku nekk am nga ñoo xam ne ñoo la daan am na ñoo batay mu ko Modou Lamine dagana ci ñi daan jàngal suñu yëkkati ci la bokk daana ko jàngaleen alxuraan tajwid waaye moom li ci ëpp gani doomi soxna yi suñ ñëwee moom moo moo ko daan jàngal xasida ndax ixraajul xuruuf yi nga xam ne daf man ko lool moom la ci daan taamu ci ëpp mu di ko defal bokk na ci ñooñu daan jàng xasida yi sëriñ Alaaji Siise ci mag ña la waaye moom sëñ Basiiru la daan jàngal moom li ci ëpp daaju basit yi moom la daan moom la daan jàng eh, ku naqaree roy am jàngam la nag ba léegi mari ne ay daajab tisaaroon waaw bokk na ci ñoo ñu sëriñ Aliou Fall moom sëriñ Fàllu la daan jàngal moom it ku neexoon kàddu la nga xam ne kon mbooleem magi sëriñ bi ak jabootu sëriñ bi kenn ku nekk amoon nga ab jàngkat boo xam ne moo la daan jàngal pour loolu li muy wane rek mooy déglu xasida ak daaji xasida ni mu yàggee jëmal murid ak ni mu amee solo nga xam ne sëriñ Fallou amoon na jàngkat sëriñ Bachirou amoon na jàngkat sëriñ ab laxaat amoon nay jàngkat ci biir këram sëriñ Saliou daara yëpp ay jàngkat euh, ay kuréel ñi ngi fi woon daarul moxti gii waa bayti yi jamono yi maam Cerno ba léegi ñu ngi fi ay daaj yoo xam ne daajal nañ ko sëriñ mu dégg ko loolu lépp di ay ci yoo xam ne wane rek maanaam jàngum xasida yëkkati gi ni mu amee solo ni ko sëriñ bi daan waxee nga xam ne yëkkati gi ak déglu gi ñoo ñoo ñoo yem daan ko misaal ci am picc donc ko yeeg euh, laaf yi nga xam ne déglu ki koy dégloo ki koy ki koy yëkkati bokk na ci li lay won ne déglu gi nii rek donte jàngoo ko yaa yaa ngi koy déglu am solo bu mu am solo nooru daaree ni di ko sëriñ bi di doog a génne fa am kilifa gum ko jox ne ko dee ko jàng bis bu set sëriñ bi di ko lemmat ko jox di ko xool comme yàgg ma ne ko waaye mbàkkee li daa bari lool xasida gi guddaayu mu ne ko waaye su fekkee doo ko mën a jàng itam nañ koy jàng nga di ko dégg utal ko koy jàng nga di ko dégg nga gis ne kon di déglu njàng mi dafa am jeexital bu muy def ñi daan bindal sëriñ bi itam bokk na ci sëriñ Modou Lamine Diop Dagana ak sëriñ Moussa Alima Guèye ak euh, waaw sëriñ Modou Lamine moomu euh, daana ko bindal lu bari seigne Moussa ali moomu neena bima ko njëkkee bindal bi mu ñëwee mu xol ko gis ci ab yaq mu ne ma wa yow sa bind mi nim rafété man ak ne muy am yaa da nga jangul nahwu mu ne ko dédé mu ne ko demal ci diw sangam mu jangal la nahwu ñu daal gis ne kon ki jang ki bind khassida war na nek ko xamné ku la xam maska bu ko jangulit koy koy toppalu ba yaq du ci serigne Moussa Lima moomu serigne bi bind daana ko bind loolu bare bare ba mujj na sax am na ci lo xamne daf koy jël won ko ko ni rek mu xol na demal bind lolu nak ay ay ay ay xar bax la yo xamne na kilifa ko ko don laaj sax ne ko ndax lolu yang koy manati batay mu ne ko tama ah, ko def won de suma ko def waté rek na ko mën mako ko def loon bokku na ci ñooñu serigne Masamba mom. lu bare bare bare ci mbindu sëñ bi moo ko daan maas moo ko daan bind mu bindee jox ko ko mu copier ko maas ko nga xam ne sëñ bi daanaka lu bare bari moom la ko féetale woon ci wàllu googu wóolu ko ci doyloo ko ci lool wàllu njàngum yëkkati meeg yëpp moo ko daan lijjanti nga sëñ Ibou bu Fall moom ñu wax léegi moom sëñ Masamba ci tournée yi mu daan def moo ko jëlee ci seen dëkk indi ko ci kër sëñ bi muy jàng nga xam ne toog na fii at sax ba sëñ bi di ko laaj ndax am na soxna mu ne ko bàyyi na ñaari ñaari soxna sama kër mu ne ko demal jëli leen indi mu ñu féetewoo ci kër gi boo defee bokk na ci ñooñu sëñ Mat Lamin Gay jëm mooy ci bindkat yu mag yi la bokkoon mas nañu bindal sëñ bi am bind moo xam ne sëñ bi daf ko yàkkamti lool yàlla nattoo ko mu wànneen sëñ biir di ko soññ di ko soññ bu mujj mu ne ko wànneen wi daal moom moom ma gàllankoor mu ne ko ñëwal mu ñëw mu ne ko neel wànneen wi bàyyil bëti taalibe bi jàmb mu wax ko mu ko waxat boobu ñetti yoon mu ne ko demal bind bi mu demee wànneen woon lépp dañ euh, bokk na ci ñooñu sëriñ Basiru Siise Jaaxo moom ci waa Ndar yi la woon ku mënoon a bind la te rafetle ko te yàlla may ko di ku baax di ndaw loo xam ne ñu muy faatu boobu at yi bariwul ci jamono yi peste njaareen boobu ci la faatoo moom itam ñi sëñ bi fonkoon am bindam la daal ci naan ko bind loolu bare bare bare bi faatoo ñi ko fa denc foofu njaareem sëñ bi wax ci wax wax ci wax yu bare bare kon daal noonu la demee woon mbind nag léegi dafa am ay règle yoo xam ne li ci bare bari duñ ci tënkuti ndax am na mag mu ne ma asmaa ahli badr bi ñu ko génnee bi ko sëñ bi bindee nee na soo soo xoolee couleur yi daay da nga xam ñi bokk ci aws ak ñi bokk ci xasraj ak ñi nga xam ne faatu nañ ci xare bi ak rescapé yëpp ci couleur daay bi nga xam ne ci lañ ko bindee ci nga koy xamee. dalaa di gis ne kon yi. dafa am ay lu muy junj yoo xam ne bu caagee lu mu la neex xongal wala lu la neex vertal lu ci nekk dafa am nuñ ko war a defee ak fuñ ko war a jëfandikoo yooyu itam day waaw kon xam naa day mel ni ginnaaw xaw naa kii mën nañu tënk foofu yem foofu daal di wax wa akhiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëriñ Xalil Mbakke ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne moom nga ñu baaxe tey te mu aju ci xasida yi ak lépp loo xamante ne ak leeral la bu ci aju ci la cay jariñi ak lañ ca boole bokku ca ak ni nga xam ne ne noonu lañu war a jànge loolu lépp leeral nga ko ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa mu yokk sa xam-xam te kàttanal la ba tool bii nga xam ne ci ngay bay li nga ciy bay lépp yàlla na ko suñu borom subhaanahu wa taala te làqal ko ci yàqu yëgul xam naa ne bala ñu ñëw ci laaj rek ndax laaj yi xam naa ne xaw naa bari dañuy jox kàddu gi rek sëriñ Seexuna Mbàkke moom sëriñ Hamsatu moom tamit mu am ak leral bo xamantene dina ko andi ci li nga xamantene mom la serigne bi doon waxtaane mooy lu ak wal xasida yi alaykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ginaaw loolu ñu rafet waxtane bu baax baax ndax waxtane am solo la da naka li ci waro li ci waro wax lépp serigne bi wax nako leral nako na ko daanaka liñ ci yokk kon do am solo taxaw seen la yo xam rek dañ ko ci bëgg def ngir laaj la ci bokk jullit yi thème bi am na solo lool ndax xam nañ ni xasida yi Sëriñ Tuubaa yi lu am solo la rawatina ci murid yi ñax xam ne ci rawatina ci murid yi kon nag war nañ cee gën a góorgóorluwaat gën cee jaajuwaat bu baax gis nañ ni wax dëgg yàlla murid yi itteewu nañ ko lool ñu ngi ci def lu ne ñu ngi koy bind ñu ngi ba sax def nañ ci ay bis yoo xam ne loolu lañ ko jagleel ay bis yoo xam ne bis xasida lañ ko tudde nga xam ne duñ ci def lu may jàng xasida yi am na sax ci kilifa yi ñoo xam ne sàkk nañ ay barab yoo xam ne dañ ko tuddee këru xasida nga xam ne dañ faa bëgg di jàng ay xasida kon ittiwoo xasida yi gis nañ jamono bu ne taalibe yi ñu koy def waaye nag ñu gis ay yeneen ay benn benn yoo xam ne gis nañ war nañ koo gën a bàyyiwaat xel bu baax ñun taalibe yi ci jëm ko def ndax gis naa ne ndax gis naa ne xasida yu bari na lool waaye fu mu ne nii boo doon laaj ñi xam li mu xasida yi jàpp naa ne ñu néew la te ji boo ne woon sëñ bi ñaata xasida la def yaakaar naa ñu lay koy mën a tontu bëriwul kon nag gis naa ne loolu ab liggéey la boo xamante ne bii ñun taalibe bi war nañ cee liggéeyaat ndax xasida yi moom ñëpp xam nañu yokkootul maanaam 1927 ba léegi benn xasida yokkootul kon xasida yëpp mi ngi ci biir nit ñi waaye nag ñu dajale ko ba xam nangam la lim bi nangam la loolu laa gis ni defaguñ ko tey gis naa ne jamono ji fi mu àgg loolu waras waras na ci àgg kon daal gis naa ne war nañu utiwoo loolu fexe ba xam xaside yi nan la toll ba topp séddale ko ci ay xaaj xal génn xaside yi nga xam ne ñooy yi wax ci wàllu xam-xam génn xaside yi nga xam ne ñoo jëm ci wàllu julli ci yonent bi génn xaside yi nga xam ne ñoo jëm ci wàllu euh, tagg yonent bi sallallahu yooyu yëpp ñu bind ko ba nga xam ne tey jii murid ba gën a ndaw boo ko laajoon ne ko xasida yi nangam la mu wax la ko mi nga xam ne bu ñu laajee saar alxuraan ñëpp mën koo tontu ni ki noonu moom boo laaj ne xasida yi nangam la mu mën la koo tontu ni ki noonu tamit ñu wutal leen ay numéro yu leen di xàmmee ndax xasida yu bari na ci xasida yoo xam ne euh, boo xoolee dañuy nuroo maanaam bu dee lañ leen tënkee ñooy bokk ñooy bokk aw tur te yooyu lool lu mel ni xasida yi ñu tënk yi ñu tënkee xasbunallahu wa yooyu boo ko xoolee ay xasida yu bari lay doon nga xam tey boo ko bëggoon a ràññee doo ko mën a ràññee lu mel noonu a ràññee ba ñëpp xamee ko nga xam ne tey ji boo boo nee numéro sangam sangam rek ñu xam ni xasida nangam nga bëgg a wax ni ki noonu tamit xasida gi ñu fexe ba xam li mu bëy di bind ko ci loolu gis naa gis naa ne jafewut nga xam ne xasida buñ ci tuddatee da nga bala ngaa tàmbalee da ngay bind ca fegg wa bëy li mu bëy di na mu toll buñ ci mën a ñu fexe ba xam barab yi ko suñ bi defee woon jamono yi nga xam ne ko defoon buñ buñ mënta xam wër waak bës bayit ñu xam at ma sax kon bu ne barab bayit buñ ko mënta xam bu baax ñu mëna rañalé ma ndax loolu ñepp geej gi la wala ci jamono geej gi la wala ci ginnaaw geej gi la gis naan yoy yëpp ab liggéey la bo xamantene bi waras na ci gëna a sonnaat ak it bu noppé ci loolu yëpp dajalo ko dal mu nekk ab jumtukaay bo xam dañu xam ne xassida yëpp mi ngi ci mi ngi ci li donc dañ ko def ci ay mu jala daal ñu def ko ci xam ne li li nga xam ci xassida seen bi yëpp moom mi ngi ni ñaan amatu benn bu dess su boobaa li sëñ bi doon waxtaane mel ni yenn xasida yi naan bokk na ci bokku ci su boobaa dana gën a leer su boobaa kenn dootu werante ci loolu bokk na wala bokku ci ni ki noonu it euh, waras na ko mën a def ci ab programme ordinateur boo xam ne dañ ko def ci internet bi fu waay toll ci adduna bi mën see jot bind ko tamit ci mbind moo xamante ne ñuy bind ci jamono ji loolu nag boo xoolee wax dëgg yàlla am na kilifa yoo xam ne def nañ ci ay coono yu am solo boo xoolee ku mel ne si Mouhamadou Abib bu borom daaru moom ci njëkk tàmbali la bokk dajale xasida yi defar na ci lu am solo ku mel ne Sëñ Abdou ay jamonoom def na ci lu am solo daje na ci ay man moo yu bare bare waaye ba léegi gis nañ ne des na ndax xasida yi moom ñëpp a ngi ko jàng waaye gis mënaguñ koo boole ba ni xasida yi sëñ bi taalif yëpp mi ngi nii te gis naa ne loolu lu war a mën a am la kon daal maa ngi ci woo mbokki jullit ñëpp ak mbokki taalib yëpp ñu gën cee ittiwoo fexe ba loolu am loolu nag lu xaw a jaxale doon ndax kenn nit mënu ko ñaar nit ko mbooloo ñoo ko man ñoo xam dañuy déggoo ñaaral bay ñu nangu cee sonn te it faaw mu laaj ay coono ak ay waaye nag comme murid yi yaatu nañ te gis nañ ni eh, doole ji bari na leen lu ci nekk warees na ko maa def ndax gis nañ li ñuy def ci yeneen li ci des buñ ko defoon ci wàllu googu buñ ko defoon ci wàllu googu gis nañ ni dana gën a dana gën a am solo kon daal nañ ci woo mbokk yëpp naa ba am loolu yaa mooy am mbooloo moo xam ne ñooy saytu xasida ni ñu koy bindee xam ne képp ku bindati sa xasida bala nga koo móol des na ko jaarale ci mbooloo moomee ñu saytu ko xool ba xam ni loolu lu war a génn la kon daal lolu ay sel la yo xamantene bi gis nañu waran ci gëna baye xel ma ngi rafetlu waxtaan bu baax de sant ñep jërë ngeen jëf alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kon jox kàddu gi Oustaz Ahmed Mbow ci laaj bi nga xamantene mo aju ci di seen minash shaitani بالله bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa وسلم taslima رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سيرين خليل مؤسسة الوفاء بحقوق الإيمان نيغ لاي سانت سي تيم بي ني تانون ام نان تي لو كاوي نيوتي لاجي فيرندل نكو خاسي اي ولا خساي دي مبوكي طالبي باي نين كو خيل بو باخ مبوك مي نك دا دون لاج بوك نغا باخه كو mune lan moy teggi ni jàng jang jàng xasaayit yan teggi la lambo waaw jërëjëf jang khasida niñ ko waxe legi rek moy zikar moy werd moy lepp kon suñu delloo ci masalikul jinan bi serign bi wax teggi ni kuy jang alxuraan wala teggi teggi ni kuy zikar nam ko lam limon rek yooyu kuy jàng xasida noonu nga war mel te mooy jàpp ba set jublu xibla euh, teewlu euh, laab ci laab yi nga xam ne moom lañ sàkku ci yow donte sax loolu doonul loo xam ne lu mënti ñàkk la ndax euh, Aysa bi ko wax na ne yonent bi kaana yaskurullah ala kulli ahyaanihi jamonoom yëpp da ci daan zikkar léeg mu sikar baña yor yorum jàpp mu sikar yorum kon fofu dañ ko sop sop gi nak day doon lo xam boko boo da fay gëna yok efficacité bi li ngay def motax kon ki jang xassida mu ak yoy ñu wax bu ko mané loolu moy ligël jërëjëf mbokk mi mu laaj mu ne ndax xasaayit man na man na man na wérd maanaam nit ki ndax xasaayit man na wérd maanaam nit ki di ko def ko muy wérdam waaw wérd moom mooy lépp loo xam ne nit ki da koy saxal ci lu baax di def noonu la ko sëriñ bi leerale ci masaalikul jinaan kon xasida yi ngay saxal bis bu set di ko jàng loolu wérd la su fekkee nag da ciy jublu wérd maxquus kooku beneen mbir la wérd maxquus moom sëñ bi dafa digle xasida yi digle wérdu maxquus lu ci nekk mbiri boppam la kon xasida mënta wuutu wérdu màquus waaw bu fekkee dafa jubloo xam ne xasida day wuutu wuutu wérdu màquus wérdu màquus daf ko digle digle xasida yi lu ci ndég lu ci ne ndigalul boppam la ki dafa doon laaj mu ni naka la xasaay di sëriñ bi wuutee ak yeneen yi dul moom wuute nañ ci anam yu bare bare ci wàllu balaaxa ci wàllu aaroot ci wàllu yépp boole yàlla daf ko ci may ndax annahu wal arud wal bayaanu li sulibat wali bihi ayaanu arud ak naxwu bayaan jumtukaay yi ñu woy yëpp yàlla daf ko rekki jox ma ko booleeg nag nangul gi ko yàlla nangul lépp ak jagle yi mu ko jagleel moo tax xasidaam mu wax ni qasidati faaqat xasaayid al kiram wali taquud abadan xayral maram sama xasida mu faaqat moo kawe xasida yi gaa yu baax yi mbokk mi da doon laaj naka lan mën a xàmmee xasaay di sëriñ bi woy njëkk muy dem ci géej gi ak yi mu def ginnaaw géej gi loolu it am na ñu wax ne lu zoomu maa laay yalzam des na ko ci xàmmee te mooy buy daaneel xam nga euh, araf wu mujj wi moom lañuy ñuy wax rawiya xam nga bu dee woy simple nii rek moom yëpp boo daanee la raa yeneen ci yëpp mën na daanoo raa waaye bu dee lu soobu maa laayal sa nag day dafay jéggi raaga la jiitu raaga itam day nuroog moom ma jox la ci misaal rek wa jaxtu kulliye bi xam hamdin bi hamdin wa sukkoor ila waliyil mu'minina wa shakkoor xam nga raagi rek mooy daaneel bi waaye fi ne boole waale na ci kaaf ga itam shakkoor ak sukkoor loolu mooy lu zóor ma laayal sam li ci ëpp xasida yi mu koy def ginnaaw géej gi lay doon jiitu géej gi dana ci am waaye du marché bu dee ginnaaw géej gi nag lépp lu zóor ma laayal la koy def ci lañ koy xàmmee. jërëjëf mbokk mi mu ni lan nga koy labiré ci xasida ak mafaatixul bishri ak xasida ak matlabul fawzayni lu mu ci mën a yóbbuloo xanaa fonk ko te di ko jàng rek te tënk dëppu dëppu sart yi ñu wax léegi waaye li muy jariñ ak li muy yow mi ko saxal di ko ya yaa cee gis la nga cee gis mi ngi mel ni euh, añ buñ togg ba yàq ko nga tiim ko naan lii soble la lii nangam la lii kaani la lii jëm loolu ginnaaw moom xam nañ euh, def nañ ci liñ ci war a def lépp mat kon tim jëfandikoo rek mooy li ci des waaye la ko composé ak la ci kii nag loola moom day mel jërul di ci guddal jërëjëf sëriñ bi ci laaj yu am solo yooyu nga xamante ni tontu yu am solo yi nga xam ne tontu nga ñu ko kitam daf doon laaj xasida ak tawbatu nasuux doon na laaj daal koo ci indil ay leeral waaw loolu yi de mas naa koo laaj sëñ Moustapha xasida moomu moom xam nga bari gëstu la te yàgg ci xasida yi moo tax ma di ko def delluwaay ci yu bare bare ndax am na cig may lool boobu xam nga day ñaari tawbatu naso benn bi defe naa mi ko wooyee ci euh, forme jës bu bii ci des nag de mel ni mu gën a yàgg mooy foofu mu defe naa sax wax na ci biir moom sëñ bi laaj nii ne wax firli sayxi wa sayxi sayxi moo ko jaaxal waaye nee na ma sëñ bee ko def dafa dafa yàgg nag moo ko defee dafa yàgg waaye moo ko def kon mbokk mi ci doon leerlu lool loolu dégg na ko bu baax a baax bokk ci xasaay di nga xam ne sëriñ bi moo ko def waaye ci yàgg yi la laaj bii rek mooy bi jàlloon day mel ni jaalibatul maraaxib taysirul asir toxfatu ak jës bu ak mawaahibu ak muqaddimaat mu bëggoon loon ci mën a baaxe ci njëriñ xanaa li ma ci baax woon ci bu njëkk ba rek mooy góorgóorlu ci baax te fonk ko rek te jàpp bu baax a baax kii ginnaaw bi mu rafetlu waxtaan wi dadoon laaj ñaata xasayit la fi sëriñ bi bàyyilu te nit ñi dëkkee di ko di ko jëfandikoo comme bi ngay si biir waxtaan loolu it xam naa du neex a xam ndax bu fii ju tollu rek bis bu sax ngay gis xasida goo xam ne mosu ko woon a gis lim taalif moom ba léegi bari na ci loo xam ne moolaguñ ko bari na ci loo xam ne ba tegeegu ci kon lim fi bàyyi ci ab lim yaakaar naa xam ngi du du du neex a du neex a neex a xam wax naa léegi ne sept tonnes yooyu ñuy wax itam tubaab yi ñoo ko bind ci archive bi wax ne moom la bind waaye dañu sukkandiku rek ci bagage yi nga xam ne moom la yoroon bi muy jóge ci géej gi euh, tafsir yaag yëpp ñu peese ko mu nekk sept tonnes cinq cent xam naa xañ na lu bari foofu la jóge ci ñuy wax ne mbind mi sept tonnes cent la waaye ragal naa ne euh, neexute a xayma daal pour xam nu mu toll jërëjëf Serigne Khalil Mbacke ci leeral li am solo yooyu ñoo ngi ñaan yàlla mu guddal saw fan te wéral saw yaram te bàyyi la ak sam xel defe naa képp ku déglu am nga loo yóbbuloo ci xasaay bi kon ñu ngi sant mbokk bu baax di ndokkeel ñëpp. ok waaw am na ku doon laaj ni ndax manees naa jébbalu ci xasaay bi. waaw loolu itam lu mat di bàyyi xel la ndax sëriñ bi bi muy taalif xasida yi eh, booba mag ñaa ngi fi. bi muy yabal euh, ay nit ñi ñëw fii ci maam Thierno euh, di jëblu si ci moom di ko booleek ñoom di leen wax ne seenu cër mi ngi ci Thierno booba def na euh, Mafaariqul Bichri def Jaalibatul Maraaxib def yu bare bari <coughs> te jëlul yooyu jox ko kami yebal ne ko jokkul ci loolu kon xasida la muy def ci murit bi ak la sëriñ bi def ci morit bi lu ci nekk yëfi boppam la sëriñ bi moo waxal boppam ne xultu fa man yurid dafa ne fa man araada al qurba min rabbil wara fal yatluban shaykhan wa ku bëgg a jege boroomam na wut ab sëriñ dégg tey jàng alxuraan ak xasaay kon loolu mooy mooy li nga xam ne moom ci sëriñ bi kon loolu leer na ñi ko doon laaj bi sëriñ bi yebale fii ci borom Daaru Muxti booba jaalibatul maraaxib ak taysirul asir ak mafatihul bisir yëpp taalif nañ ko mag ñaa ngi jàng xasaay te teewu leen dañoo amoon ay sëriñ sëñ Musaa Ka radiyallahu taala anhu wax na ko jàng ak julleeg jébbalu ak joxe alal mooy yoonu jannatu naim yow defal